non seulement défie toute logique, mais n'a d'autre but que de porter atteinte à ma dignité et à celle de ma famille Madame ki n'a xam nekk état de Anita Diop dafa euh, capitaine Touré qui mu pas de les forces de foofu de faut détourner ay fonds pour tabac que force de daanuk biagi euh, cité biagi euh, moi kër gu c'est 300 mètres carrés ak koppar gu toll c'est 200 millions suñu ay qui ki n'a xam nekk capitaine Touré japonais ni au delà pour daal ko yak mais dafa amaat dara lo xam tam na djublu ci ginaaw moral mu daal ko koy yóbbu tey si kanam ak walu yoonal alors moom mu ne aussi je reconnais quand l'espèce la station directe aurait été appropriée euh, pendant euh, mise en cause étant inconnue et impossible à situer maanaam nee na mënuñu ko gis euh, il est impossible jamono ji pour ñu daal koy war a euh, xam ki ki mo nek si gannaaw wala kële mo nek si gannaaw moo mënu ko yónnee citation directe mu dal di porter li nga xam ne que plainte exactement contre Anita Diop je me réfère à vos services euh, pour retrouver madame ou monsieur Anita Diop pour qu'il ou elle porte apporte la preuve euh, de telles allégations exactement alors Anita TV qui continue toujours de faire mal qui continue toujours taper mais aussi euh, de calomnier li nga xam nekk ay doomu aadama tey euh, fraîchement ñu nommé ko ci ASP Anita mu ne dafa détourné ay fonds toll na ci li nga xam nekk moo di ay millions te bëgg na jënd kër foofu ci daanu Siribiya gi. waaw Fallou loolu moom xam nga ni du dëgg daal. Mm. xam nga. Mm. ñu waxante dëgg rek te yàlla tax je pense que ni jarul sax di di di attardé wu. de trop parce que du deug xam nga capitaine Touré. depuis biñ ko nommé légui japp na ni sax installé gu toogagul maanaam toogagul toog bu deug dama xamante deug rek bañ ko togal bañ ko installé léegi toogagul toog bu dëgër bu mën détourner ay fonds pour ne day tabax. day tabax 200 millions day 200 millions pour mën tabax ak wala jënd ay kër dama xamante deug rek. je pense que nak c'est l'occasion c'est l'occasion pour véritablement ñu mën déterminer wala démasquer. en réalité. kan mooy Anita Diop. Hmm. parce que Anita Diop. kan moo nekk si ginnaaw moo nekk si ginnaaw. loolu c'est c'est c'est le moment je pense que ñu war ko ñu war ko xam parce que boo xoolee sous le magistère du président Macky Anita Diop mii lu mu fi bindalul ay opposants politique fàllu hmm. amut ci wax ju ñaaw wax ju bon ah di di di féewale ñaata nit la interpellé ci justice parce que tout simplement un compte Facebook lañ yor doon bind wala di wax ci mi ñu interpellé leen et je pense que suñu justice tay xarañteem toll na foo xamante nit warul mën a ci compte Facebook ay at di bind te kenn mënu ko xam jàpp naa suñu na kon jàpp ni c'est le moment ou jamais de de connaître véritablement ce qui se cache derrière ce compte ce compte fictif là parce que c'est un compte fictif. Mm-hmm, mm. Parce qu'il est piloté aujourd'hui, jusque-là, on ne connaît pas sa, sa, sa, euh, nature. Mais au-delà compte fictif, exactement. Anita, des fois, détenir des informations, que quand on se rappelle Ousmane Sonko euh, si amal Anita euh, Ousmane Sonko avec son carte d'identité euh, image gendarmerie aussi le fait que capitaine euh, le fait que Anita TV jot ko d'autres et d'autres euh, quand on se rappelle exactement. Euh, si ay mbiru Ousmane Sonko. ak le donc Anita. aujourd'hui ponkal mon nekk si gannaaw de compte. exactement ñu fi c'est vrai c'est vrai ngandi ponkal parce que tay bo xolé pratiquement Ousmane Sonko bagn ko maa ngi ko jàppee jëlee ko interpellé ko si yoonu xaw ma ban. ànd mm, mm, mm, dugal ko ci oto gendarmerie bi. mais image yooyu kan moo ko njëkk a génne. voici euh, waa image yi. bëggoon humilier waa ji taxoon ñu génnee image yi boole seeg ay kàddu ay propos yu ñaaw ay données personnelles am kan moo ko njëkk a génne. kan moo ko njëkk génne te pourtant fii Pape Alé Niang la lañ ko interpellé woon nee nañ dañ dafa génne document boo xam warta génn. tu as vu. quand hmm. jàpp c'est le moment moi c'est le moment ou jamais de déterminer ou bien de connaître la personne qui se cache derrière ce compte fictif là. mais ce ne serait pas aisé du exactement. pourquoi pas <laughs> pourquoi du parce que. non pourquoi du parce que compte bi dem un ko ba non non euh, non les informaticien Pourquoi exactement. ce qui est derrière mais mais état et justice. jàpp naa naan surtout nag ñu am régime bu mm. bees mm. boo xamante ni Anita Diop am musul ànd ak ñoom jàpp naa ni nag seen ay compétence wala seen envergure wala seen dayoo war na mën a tax compte bi waru leen mën a jaaxal quand amul technicien bu mënul définir déterminer en réalité la personne qui se cache derrière même bu jalee jëlee ba Chine sax jar na ko jar na ko mm. moo tax ma ni la tey suñu justice nag ma ko mais jàpp naa ni weesu nañ foofu fu ñu xamé kana a ci kan compte boobu parce que bo xolé compte bi en réalité lu nit ñi mënuñu ci woon lu bëree bëri. Hmm. c'est parce que tout simplement ñun ñep on pensait. jusqu'à hmm. preuve du contraire que ki ki ki nek ci ci ki ki nga xam moy moy manipuler. Euh, hmm. compte boobu C'est un proche du gouvernement du du de de l'ancien régime. kon japp naa ni euh, capitaine Touré aujourd'hui a donné l'occasion parce que musuma dégg ni nit porte nako plainte alors moom nee na porté plainte sénégalais euh, maanaam porté une plainte sénégal parce ki nga xam ne que euh, Anita TV donc nag mi ngi exactement moom ki nga xam ne que Anita qui n'a pas di jàppee nii ki nga xam que capitaine Touré dafa daal détourner lu daal di Secours si koppar gu bëri foofu si doonu ASP bëgg koo tabaxee que Force de doonu li nga xam ne que modi justement euh, cité Biagui à hauteur de 200 millions de 300 mètres carrés cadre une nu mel nag ki nga xam que modi capitaine Touré euh, wedd nak ko ba set wetch euh, saisir na ñëm wala daal saisir limi muy daal di ji nak si yoon ak walu yoonal euh, moy ñu daal koy wëral ana kan moy justement mom Anita TV mu daal ay preuve yu concordante ay preuve yo xamni tam peut-être dina ko daal di war satisfaire donc nak jamono ji cyber criminalité mi ngi si nga xam ne que moo di bi fexi itam daal di mëna détecter xam découvrir cette personne justement de Anita Diop donc mu daal di li nga xam que Modi justement notamment qui qui comme capitaine Touré le combat pour la droiture et l'essence du sacerdoce euh, que promeut le président Bassirou Diomaye ne sera pas du tout repos et nous le savons les forces euh, centrifuges ne ménageons aucun effort pour nous voir échouer c'est pourquoi nous devons tous avec une fermeté sans équivoque

Le euh, capitaine Touré dañuy daal euh, auparavant euh, ki n'a a que Ahmed Suzanne Camara mu dit exactement euh,